wa sarra al umuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al ixwatu wal axawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi aima yi ilimaan yi ak jàngalekat yi ak wootekat yi ak ñi nekk ci seen gannaaw ñëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo jiite section jamaatu ibaadu rahmaan fii ci Sahel bi ak li ko wër ñoom ñi nga xam ne ñoo dalal fii tey ngir nu bokk jàng pour mu bokk fàttalante bunt bi ñuy fàttalante ni ñu ko déggee léegi ci ustaas mooy al aqidatu saxiixatu wa maa yudaaduha min al aqaaidi al munxarifa mooy pas-pas bu wér ak li wuuteeg moom ci yeneeni pas-pas yoo xam ne yu wérul la yu jubul la xam nañu ci tegtali sharia ci alquran ak sunna ci ne jëf yëpp ak wax yëpp yi ñuy def ci jaamu yàlla mi ngi wére ñu di ko nangu su fekkee mi ngi jógee ci pas-pas bu wér moo ko lal moo ko jiitu su fekkee pas-pas ba wérul mbooleem lu ca soqi koo ci ay jëf ak i wax lépp dafay nen moo kon jamono bu nekk ñu war di ko nafaraat moom wàllu pas-pas ndax mooy tax li ci des lépp wér borom ne wa man yakfur bil imaani faqad xabita amalu wa huwa fi l min alxaasirin nee na ku dem ba weddi ngëm te mooy na mu gëme bokkul ak ni nga xam ne noonu la borom bi tabaraka wa taala xam lee ne noonu lañu war a gëme yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko nekkoon ca moo ci saxaabaam ba suñ boroom ne ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw nit ñi suñu gëmee ngëm gu mel ne gi ngeen gëm yéen boobaa gindiku nañ kon bala ngaa mën a gindiku tegu ci yoon wu jub da nga ngëm goo xam ne dëppoo ak gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon moo ki saxaabam te ngëm googa fañ ko jële woon ba léegi mi ngi fi muy alquran mu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam bi koy leeral borom bi dellu wax de di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bu waxee moom wax naag ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci gannaawam te ñu yónni ko ci ñoom wala laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in asrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin suñ borom ne ko wax naa la ni ma wax yoo woon yonent yi la jiitu woon yépp ne boo bokkaale woon sa jëf yépp dana sippiku dana neen danga bokk ci ñiy perte bokkaale googu nga xam ne mooy safaanu pas-pas bu wér ndax pas-pas bu wér mooy wéetal yàlla bokkaale nag mooy safaanu wéetal yàlla jëf mi ngi wéree ci pas-pas bu wér waaye mi ngi yàqoo itam ci pas-pas bu wérul moo tax jaamu yàlla gum mën a doon soo ko jàngee ba xam la koy wéral war ngaa xam la koy yàq soo jàngee njàpp xam faraidul wudu ak sunanul wudu da ngay jàng nawaqidul wudu boo xamee farata njàpp ak naa sunnaam itam ak i ngëneelam war ngaa xam li toj njàpp ndax njàpp ma bañ a yàqu te fekk na yow xamoo njàpp man naa tooy xib te fekk na yàqu na su boroom xamul woon lay toj njàpp nag mën naa defee ne moom comme mi ngee fum njàpp rek naka noonu boo demee ci julli dañ lay wax gannaaw buñ la jàngalee ay farataki sunnaam dañ lay jàngal mubtilaatu salaa yi nga xam ne moom itam dafa yàq julli naka noonu boo demee ci koor bu ñu la ko jàngalee dañ lay jàngal muftiraatu sawm yiy dog koor bala ngay defee na yaa ngee koor fekk yoratoo ko naka noonu boo demee ci aj dañ lay jàngal mufsidaatul xaj yiy yàq aj ndax balaa yàqu te fekk doo ko xam ndéeg yooyu lañuy ñuy jàng di ko xam ne te yooyu bu ci yàqu moom rekk moo yàqu waaye du yàqaale leneen su fekkente ne julli gi moo yàqu njàpp ma mën na taa nekk ba tey mën naa liqaamaat rek kabbaraat dal di julli fekk julli gi moo yàqu waaye njàpp mi moom yàquwul bu wooroon koor gi dog itam koor gi moo dog waaye duñ ne ko julli yi nga julli woon ci bëccëgu koor bi yépp day ànd ak koor gi déedéet yooyu du ko julliwaat julli yi moo wér nañ ba tey naka noonu bu doon aj itam aj ga yàqu julli yam doon julli ca biir aj ga yooyu yëpp dara yàqu ci waaye bii nag nga xam ne moom mooy nawaqidul islaam mooy lii firi ngëm di firi lislaam ndax benn la ci ponk yooyu nga xam ne bu ne am na lu ko yàq moom itam kon am na lu koy firi te moom nag su firi ko su yàqoo du fa bàyyi njàpp du fa bàyyi julli du fa bàyyi koor du fa bàyyi asaka du fa bàyyi aj makka du fa bàyyi dara lépp la yóbbaale la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu jëfam yépp sippiku na fa muy mujjee min alxaasirin mooy ku amatul dara moo tax kon mat nay jàng bu baax alquran tegtale na ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ne pas-pas bu wér mi ngi tënku ci gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm bis bu mujj ba gëm ab dogal ba nekk yiw ak ba nga xam ne ay waaye bu ci mën doon ñu gëm ne ci borom bi tabaraka wa taala lay jóge juróom benn yooyu ñoom ñooy cosaani pas-pas bu wet bi nga xam ne moom la alquran andi yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko suñu boroom yabal yonente bi sallallahu alayhi wa ngir mu jàngale pas-pas boobu pas-pas boobu yi ci des yépp ci lay sotti ko bu doon garab mooy tàttu garab gi bànqaas yépp euh, ci la ñuy sotti ko ci mbooleem lu ñu war a gëm ay tegtalam moom gëm googu nga xam ne mi ngi tegu ci juróom benn yooyu digg na ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci alquran suñu boroom a ngi wax ne laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil aaxir wal malaaikati wal kitaabi wan nabiyyiin tudd na foofu juróom ci yooyu nga xam ne mooy composé pas-pas bu wér gëm yàlla gëm bis bu mujj ba gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonent ci beneen aaya mu ne amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ci beneen aaya boo xam ne mi ngi jëm ci dogal mu ne alam taalam anna allaha yaalamu ma fi samaai wal ard inna dalika fi kitaab inna dalika ala allahi yasir xanaa xamuñu ne borom bi tabaraka wa taala lépp lu nekk ci asamaan suuf xam na ko ndax loole bind na ko ci téere ba noppi lu xew rek fekk na bindoon nañ maa asaaba min musibatin fi l ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qable an nabra'aha inna zalika ala allahi yasir asaaba min musibatin fi l amul benn musiba buy dal ci kaw suuf mu dal ci seen i illa fi kitab lu may nekk na ci téere bind nañ ko ba noppi amma ahadis yi nga xam ne day tegtalee usul yooyu mu juróom benn cosaan yooyu nga xam ne mooy tënk al aqidatu saxiixa bokk na ca hadis bi siiw muslim solo ko jële ko ci amirul muminin omar ibnul xataab radiallahu anhu ñu koy faral di wax hadisu jibril mooy bi jibril alayhi salaam ñëwee yoru melaw nit di laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko lan mooy ngëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al iman an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axir wa tumina bil qadari xayrihi wa sharri tuddal ko juróom-benn yëpp ne ko loolu mooy ngëm juróom-benn yooyu lépp loo xam ne ab jullit war na koo fas ci àqi suñu borom tabaraka wa taala ak ci mbiri yowmal qiyaam ak ci mbir yi nga xam ne yépp kumpa la ci yooyu lay soq ko bi ci jiitu mooy al imaanu billahi taala gëm yàlla gëm yàlla mooy ñu gëm ne suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ñu war a jaam te jaamu nga nekk dëgg leneen lu ñuy jaamu te du suñu borom tabaraka wa taala jaamu nga nekkul dëgg ndax moom mooy ki nga xam ne moo bind mooy ki nga xam ne moo rafetal jëme ci jaam ñi lu ñu am ci lu baax ci moom la jóge moo yore seeni wërsëg moo xam seen lu nëbb ak seen lu feeñ mooy ki am kattan ci fay ñi koy topp waaye mooy ki am kattan ci mbugal ñi koy moy jaamu googu ñu ko war a jaamu loolu moo tax mu bind nit ak jinne digal leen jaamu gi itam nag wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun waxaan ne yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min tattaquun yéen nit ñi jaamu leen seen borom bi leen bind bind ñi leen fi jiitu woon ci jaamu googu ci ngeen di jële taqwa ci ngeen di jëlee ragal yàlla goo xam ne moo leen di mën a musal ëllëg ci safara dugal leen aljanna mu wax ne fala taj'alu am andaadan wa antum taalamuun bu leen wutal yàlla yu ngeen koy dendaleel te fekk xam ngeen xel ne kenn yeyowul ñu koy dendaleeg yàlla ñu boroom yabal na yonent yi wàcce téere yi ngir leeral dëgg googu dëgg googu nga xam ne moom mooy borom bi tabaaraka wa rek lañ war a jaamu yonent yépp loolu lañ doon leeral di wattandiku loolu safaanoog loolu mooy jaamu leneen moo tax mu wax ne wala qad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudullah bu taaxut an yabudullah mooy dëgg gi mooy aqidatu saxiixa ñu jaamu yàlla wajtanibu attaaxut ñu wattandiku nag taaxut te mooy leneen lu ñuy jaamu ca du loolu mooy safaanu pas-pas bu wér mu ne nit ñi nag séddalikoo ñaari xaaj ci loolu fa minhum man hadallah wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoo xam ne suñu boroom defal na leen tawfiq ñu gindiku topp njub googu waaye tam nag ci sababu ñu sabab lu ko nag ñoom itam walla si nëhtadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwa ñi jéem a jub jublu jëfandikoo xel mi leen yàlla jox ak jumtukaay yim leen jox jéem a ak njub bañ a topp seen bànneex suñu borom dimbali na leen doole leen ak njub teg leen ci yoon wu jub bi am na nga xam ne nag moom dañoo topp seen bànneex wuyuwuñu ñi yàlla yónni li mu wax yonente bi fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabiuna ahwaahum suñ la wuyuwul xamal ne seetatuñu dëgg waaye seeni bànneex ak lu leen neex rek lañuy ñuy topp boobaa ñooñu nag bu boobaa ak réer moo yey ci ñoom dëgg-dëgg jaamu googu nga xam ne moo tax ñu bind nit ak jinne muy ñu wéetal suñu borom tabaraka wa taala ci mbooleem loo xam ne jaamuloo na ci jaam yi yàlla itam nag da koy jaamoo ci li mu la jaamuloo waaye doo fent yow loo koy jaamoo moo xam ñaan la wala ragal la muy jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàllay xol la wala yaakaar wala jaamu yàlla yi nga xam ne xol lay boole ak i cër lu mel ne julli ak koor ak rendi ak nisër ak yeneen yu bokkul ak yooyu ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne suñu boroom farataal na ko ci jaam te buñ koy def itam nag mu ànd ak koog toroxlu ànd ak koog nangu ànd ak yaakaar ak ragal ànd ak cofeel gu mat sëkk itam suñu borom tabaraka wa taala loola mooy tax mu nekk ak jaamu gu borom bi yeyoo gu borom yeyoo ak pay alquran buñ ko dee jàng dañ gis ne li gën a bari dafay wàcc di saxal cosaan yooyu moo tax borom bi ne ala lillahi diinul xaalis na ngeen xam ne daal yàlla moom diine ji muy nangu mooy diine ju sell ju roxul dara joo xam ne boolewuñ ci keneen boolewuñ ci leneen yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci addis boo xam ne Muaz radiallahu anhu nettali na ko mooy ba mu ko laajee ne ko atadri ma xaqullahi alal ibad ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci jaam yi mu ne ko allahu wa rasulu alam mu ne ko xaqullahi alal ibad an yaabuduuhu wala yusriku bihi shay'a ak yàlla ci kaw jaam yi mooy daal ñu jaamu ko te mooy ñu wéetal ko te duñ ko bokkaale ak dara walla leneen ngëm yàlla googu itam dafay laaj ñu gëm mbooleem li mu waral farataal ko ci kaw jaam yi ci ponki lislaam yi tàmbulee ci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ponk boobu nga xam ne moom mooy fondement bi nga xam ne ci la lépp di tege taxawal julli joxe asaka woor weer koor aj néegub yàlla ba ci ko man ak yeneen yi nga xam ne ay faratala la yoo xam ne sharia andi ko ngëm yàlla gi day laaj jaam bi gëm yooyu ak ndag di ko jëfe itam ponk yooyu bi ci gën a màgg mooy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah shahada boobu dafay laaj sellal ak jaamu ci suñu borom tabaraka wa taala moom rek daq jaamu googu ci keneen ku dul moom loolu la laa ilaha illa allah di tekki li muy tekki mooy laa maabuda bi xaqin illa allah amul dara lu ñuy jaamu jaamu nga nekk dëgg ku dul suñu borom tabaraka wa taala lépp luñ jaamu te du suñu borom te jaamu nag nekkul rek koy dem di ko sujootal barab bu ñu dem di sujoot wala ñu koy raay wala ñu koy wër ne loolu rek mooy jaamu waaye jaamu la ci jiitu mooy taa nangoo topp koo xam ne bu la digalee nga def ci ndigal la ci bu boppam la jóge bu la teree nga bàyyi ci tere ga itam ci boppam la jóge kooka booba yaa ngi koy jàmm loolu wax sirku taa loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la tontu tontu woon Adiy ibnu Xaatim ba mu déggee muy jàng yaa yaa ayyuha allazina amanu inna kasiran min al ahbaari wa ruhbaan la yakuluuna amwaala nnaasi bil baatil ba mu déggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jàng ne ittaxasoo axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah ñoom de dañoo jàppe seen fóore yi ak seen jaamukat yi ay yàlla bàyyi yàlla te fekk moom ci diine jooju la njëkkoon a nekk nasaraan la woon ay dafa tuub mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man kat nekkoon waaye jaamuwul leen defe na jaamu ga mooy dem di leen sujjootal wala di leen raay wala di leen wër yonente bi sallallahu alayhi wa nekkoon moo tax du ñu leen digal loo xam ne ñoom ci seen bànneex rek la jóge ñoom ñu digal leen ko ngeen def mu ne ah kay moom kay lu ñu digal moom du ñu laaj sax fu mu tege ginnaaw ci ñoom la jóge rek dañuy daal ne moo tax du leen tere itam loo xam ne ci seen bànneex rek tax ñu tere leen ko mu ne ah kay lu ñu tere kay ñu baax mu ne tilka ibadatukum lahum loola mooy jaamu ga ngeen leen doon jaamu kon sellal jaamu suñu borom tabaraka wa taala laa ilaha illallah bi li muy tekki mooy amul benn ndigal bu may dikkal ci ak jaamu lu dul mu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa la muy tekki mooy ndigal loolee itam nañu koy defee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dong laa koy jële waaw bu tëjee bunt boobu rek bu boobaa tawxid dafay daal di eh, mën a am moo tax lépp lu ñu jaamu te di suñu borom tabaraka wa moo xam mbindeef la nit la wala malaaka la wala jinne la wala façon bu mu doon jaamu googee baatil lay doon neen lay doon borom bi ne zalika bi anna allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi al baatil min dunihi lépp loo ne min la rek du yàlla rek al baatil neen la wa anna allaha huwa al aliyul kabir wa anna maa yad'una min dunihi amul benn exception zalika bi anna allaha huwa al haq moom dong mooy dëgg moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko wa anna maa yad'una min dunihi al batil ci beneen aaya bi mu ne huwa al batil wa anna allaha huwa al aliyul kabir bokk na ci ngëm googu itam li muy laaj muy ñu gëm ne suñu boroom moo bind adduna bi mooy kiy doxal ay mbiram itam mooy ki ciy soppandiku ci xam-xamam ak kàttanam mooy ki moom itam adduna moom alaxira moom bindeef yépp amul kenn kuy bind ku moom moo tax itam amul kenn ku yeyoo jaabu ku moom moom mu yónni yonent yi moo wàcce téere yi ngir yéwénal mbiri jaam yi ak woo leen jëme leen ci lu leen di tax a mucc ak luy baaxal seeni mbir fii ci ak lu koy baaxal ëllëg buñ suñu borom tabaraka wa bi ne allahu xaaliqu kulli shay wa huwa ala bind lépp moo yore lépp it nekkul ne leen bind ba noppi bàyyee leen ñeneen ñu di leen seere yor seeni mbir mooy seere lépp moo tax ñu ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil ni'mal wakil moom mooy wakil bi mooy kiy saytu moo yore lépp du da leen bind ba noppi may leen ñeneen waaye moo yore seen mbir allahu xaaliqu kulli shay wa huwa kulli shay'in wakil lépp moo ko yore waxaate ala lahu alxalqu wal amr tabaraka allahu rabbul alamin lahu alxalqu wal amr moo bind mooy digle mooy seere moo yore lépp bind leen ba noppi bàyyee leen keneen mu li leen digal ak a tere déedéet ala lahu alxalqu wal amru kooku mooy boole tawxidul uluhiya ak rububiya lahul xalq mooy rububiya moo bind kon lahul amru itam moo moom mooy digle mooy tere bokk na ci li tax ngam googu wér itam gërëm gëm turam yu rafet yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne alquran addina ko ak yi nga xam ne sax na jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañ ca wëlba ci dara tur wu mu tudde boppam wala melo wu mu melal boppam moom borom bi tabaraka wa taala ñu bàyyi ko noona bu ñu ne firiwul dara wala ñu di ko jéem a wutal lu mu mel wala ñu di ko jéem a misaal dañ koy bàyyi na mu ko waxee rek ndax laysa kamislihi shay wa huwa samiul basir amul dara loo ko mën a niróoleel wala loo ko mën a dendaleel ba tax nga mën koo misaal yàlla daal lu mu tuddee boppam tuddal tur wa noona rek bàyyi te fas ne na mu gën a mate na mu gën a yella ci moom noona la mel am maa nag yow nga mën koo xam wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi bi ma shaa mbiram kenn mënu cee xam lu dul la soob mu xamal la ko waaye am xel mu rëy mënu caa yeggale nit moo tax mu ne faa tadribu lillahi am amsal bu leen jox yàlla ay misaal di nurale yàlla ak dara di ko misaal déedéet inna allaha yaalamu wa antum la taalamuun fala tadribu lillahi al yàlla kenn du ko misaal ci dara kenn ko misaal ci dara léegi wax yi nit ñi da dégg yu bari ñu koy misaal di ko nurale ak yàlla waaw yàlla nangam laak yàlla patron laak yàlla xale bu góor laak yàlla nangam naak lu ne ngay dégg ñuy wax kenn waru ko wax yàlla sore na yooyu yëpp kenn du ko nurale ak dara kenn du ko misaal ak dara fala tadribu lillahi l amsal bu leen jox yàlla ay misaal inna allaha yaalam wa antum la taalamun lii mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa bi yonente bi sallallahu nekkoon ak i saxaabaam ak nag képp ku ko topp ba léegi bi ixsaan képp ku leen top te rafetal toppin wax mooy yokkoo ca wàññiwoo ca da ngaa yem mooy bi ixsaan wala si na tabaouhum bari na ñuy wax ne moom yonente bi saa sallam lañ topp mais bi ihsaan ji nag mooy li koy segg waaw soo ca yokkee wala nga wàññi si rek wala nga andi ca leneen yow topp ga rafetul ndax corrigé nga boo ca yokkee kon da nga ne daa manqué woon boo ca wàññee da nga ne daa ëppoon te kon yooyu benn benn rafetu ci kon bi ihsaan nag mooy ka ca yem rek bi misli misli exact fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw day nekk excentrique dëppoog la ñu yoroon moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam te loola doone dama ko fee fekkul wala damaa xamul loola nu meloon mi ngi ci alquran leer nañ ci alquran yaa yolla si na amano yaa ngi leer nañ ci alquran def leen nangam wala bàyyi leen nangam leer ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaareel ba ci cosaani ngëm googu gëm malaayika yi lu mat di bàyyi xel la gëm malaayika day làmboo nga gëm ne borom bi tabaraka wa taala dafa bind ay malaayika yoo xam ne seenub lim moom rek moo xam ne ñu toll wa maa yaalamu junuuda rabbik illa hu moom rek moo xam ne mu toll waaye na gëm ci itam ñi nga xam ne gëm boo xam ne da nga koy détaillé ñi nga xam ne tudd na seeni tur wax itam seen yañu leen dénk te yooyu aju ci bindeef gëm ne ñoom ay jaami yàlla lañ taxul ñu laal ci nguuru yàlla ki dara nag laa yasbiquunahu bil qawl wa hum am amrihi yaamaluun du ñu jiitu yàlla ci dara ndigalam rek la ñuy jëfe te laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun ñoom du ñu mooy yàlla lu mu leen digal bul jàpp ne dañoo am benn pouvoir fa yàlla comme ni ko ñenn ñi daan defe ba li leen jaamu day malaayka la ñuy jaamu moo tax bi day interpellé malaayika yowm alqiyama ne leen a haulaai iyakum kaanoo yacbuduun qaalu subhanaka bal kaanoo yacbuduun al jinna aksaruhum bihim muminuun suñu borom day ay rawaan lañ gis ak lu lañ gis ay malaaka lañ gis fekk ay jinnee leen di nax moo tax borom bi ne malaayika yi waaw yéen la nit ñi doon jaam a haulaai iyakum kaanoo yacbuduun ñu ñun yàlla tudd nañ si sell ñun duñu feeñu kenn di ko wan kenn lu nuy jaamu ndax maa natanazzalu illa bi amri rabbik duñu wàcc lu dul ci ndigalul yàlla malaaka yi liibaru ñuy di dem ak a ñëw ak di seeti di seeti masamba ak ba dem ba ci ordre la ñuy dox laa yasbiqoonahu bil qawli wa hum bi amrihi yaamaloon bi ya yaamaloon ndigalam la ñuy jëfe moo tax ñu ne ko subhaanaka bal kaanoo yaabudoona al jinna ay jinne lañ doon jaamu wat tax borom bi ne yaa masalal jinni xad istaksartum min al insi yéen jinne yi bari nañu ñu ngeen tànk ci nit ñi de jinne yi na rabbana stamtaa baaduna bi baadin wa balaxna ajalana allati ajjaltana borom bi ne leen annaaru kon maswaakum xaalidina fiha waaw ne yàlla kat nit ñi dañoo am fu nu am fu leen féete istamtaa bi baad waaw jinne yi doon lañ faj seen soxla ci nit ñi nit ñi di faj seen soxla ci jinne yi jibar bi jinne yi xëy na deret yañ bëgg ak rey gañ bëgg ñu ne daal di andil xar mu nàngam rey nàngam jinne yi ñu rey loolu ñoom mën a am soxla nañu la ñu rey jibar ba itam ñu weexal ko mu def xaalisam kon jinne ji jariñ na ko jariñ na jinne ji moo tax mu ne ko istamtaa baaduna bi baad nekk nañ fi nag ba sunu fan jeex wa balax naa ajala na la fi ajalta la dundu dund nañ fi ba sunu fan jeex borom bi ne comme non la nag kon na annaaru maswaakum yéen sawara mooy doon seen dëkkuwaay kon malaayka yooyu dañuy gëm ay xeet lañ am na ci ñoo xam ne ñoom la borom bi wakiil aras ñoom ñoo ko yanu wa yaxmilu arsa rabbika fawqahum yawma isin samaniya am na ci juróom-ñett ñoo xam ne nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam bu borom bi atte jaan ñoom ñooy téye aras ñoom ñoo ko yor yaxmilu arsa rabbika fawqahum yawma isin yawma isin bu keroogee am na ci ñoo xam ne ñooy xasanatul janna wa naar ñoo xam ne ñoo yore bunti safara yi ñi yore bunti aljana yi am na ñoo xam ne ñoom lañu wakiir jëfi jaam yi wa inna aleykum la xaafisin kiraaman katibin yaalamuuna ma tafaluun am na ci ñoo xam ne itam ñoom ñooy sàmm jaam yi mu koor bi ci boppam la ñuy protéger parce que bu dul woon loolu jinne yi nga dëkkal fii ci kaw suuf te ñoom dañ lay gis doo leen gis innahu yaraakum moom iblis ak ñim àndal huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum waaw xam nga mu ngay dox fi léegi daje kooyul jinne loo xam ne bu la kenn protéger wul woon ñoom nga baax ak ñu bon moom malaaka yooyu ay garde corps lañ corps bi la ñuy protéger rek ba ba saw fan jeex loolu la borom bi ne lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfasuunahu min amrillah yaxfasuunahu lahu muaqibat malaaka yooyu nga xam dañuy relever ci bu ñuy yendoo ci yow ñii fanaan ci yow ñoom dañ lay garde bu dul woon loolu fi ngay génne kuyul jinne war na la léegi waaw waaye dañ lay sàmm bokk la nag nga xam ne moom dañuy bind say jëf kon nga gëm ne yaa ngi ànd ay malaayika gëm ne am na ci koo xam ne mi ngi tudd Malik borom bi wax na ko nee moom mooy xaasinu naar wanaa daw yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk wal quran dafa tudd turam waa safara dañu woo Malik comme moom moo guide personnel bi yore safara yépp mooy seen chef mooy ubbee ko tëj ñu ne ko Malick waxal yàlla mu jekkalinu waa safara foofa dee la ñuy ñaan xam nga bu dee fii ci àdduna dee lañuy ñuy waaye bu dee ca alaxira ca safara ñooñe dee la ñuy ñaan mbugal xam nga mbugalum àdduna mi ngi yem ci dee mbugalum alaxira nag mi ngi tàmbalee ci dee dee ci gën a set dee ca gën a set fi mu ne fii ku lay tëkk moom naa leen def nangam baga dee rek lay wax baga dee rek foofu la mën a kon condamné à mort moom defe naa amul peine capitale lañ ko tudde defe na amul beneen peine bu ko fare kaw moom peine capitale <laughs> foofu la yëf yi yem waaw bu dee fee moom foofa boobay boobay peine bi gën a suufe mooy boobu moom la ñuy ñaan li yaqdi alayna rabbukum qaala innakum maakisuun ndax laqad jinaakum bil xaq walakin aksarakum lil xaqi kaarihuun foofu ngeen di sax ndax andi la nañ doon dëgg waaye li ëpp ci yéen dañoo bëggul woon a dëgg gëm malaayka mi nga xam ne moom lañu wakiil ne mooy wol bufta bi am na ci ahdis yum ñëw ne israfil la tudd yonente bi sallallahu alayhi wa ci addis boo xam ne aysa moo ko detli mu ne xuliqatil malaikatu min nuur wa xuliqa al jannu min maarijin min naar wa xuliqa aadam mimma wusifa lakum nee na yi ñi ngi leen bind ci leer jinne yi moom ñi ngi leen bind ci tàkk tàkkul safara aadama nag nee ñi ngi ko bind ci li nga xam ne melal nañ leen ko borom bi wax na wax nanu ko mooy min ñetteel ba gëm téere yi kon malaayka yi boo leen danga leen di bàyyi xel foo toll foo toll jàppal ne wéetoo yaa ngi ànd ak i malaayka loolu dana la gën a tax nga sàmm ci looy def parce que lu baree baree bari boo nuy wéet jàpp ne kenn nekku fi nga jàpp ne yow dong nga fi ba tax nga ñemee def la ngay def jàppal ne yaa ngi ànd ak ñoo xam ne loo wax dinañ ko bind te loo jëf itam gis nga borom bi ne yaalamuuna ma tafaluun xam nga jëf ñoom foto dañuy bind jëf ji jëf boo xamul nu tudd doo ko mën a bind moo tax borom bi nag xam nañ li ngay def nu mu tudd waaw xàmmee dañ koy fecc kuy julli waaw ah, yaalamuuna maa tafaluun li nga def xam nañ nu mu tudd loolu la ñuy bind nga duñ fa nekk ne naan gis naa muy sëgg ka siggee ka kii daal waaye xamoon li muy def daal ab nii daal la doon def mais dañuy bind directement ne nangam la doon def da doon julli da doon def nangam yaalamuuna maa tafaluun loo def rek xam nañ nu mu tudd ku bàyyi xel loolu dana tax mu jàpp ne kon wéetul benn yoon ñetteel ba ci pour am pas-pas bu wér foog nga gëm téere yi ijmaalan mboolem téere boo xam ne yàlla wàcce na ko ci ab yonent waaye nga gëm tafsilan yi ci tudd muy tawraat ak injil ak zabor ak alquran borom bi ne laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna maahum alkitaba walmizan li yaquuma annaasu bilqist yebal naa ay yonent wàcce ci ñoom ay téere téere yoo xam ne dañoo ànd ak misaan maanaam ak maandu gu mat sëkk loo xam ne kenn ku nekk dañ lay jox sa àq bul dugg ci sa àqi morom ngir nit ñi mën a dund dund boo xam ne bu maandu la ñu gëm ne nag téere yooyu bi ci mujj te ëmb leen ñoom ñépp nag te bi mu ñëwee itam benn at benn téere doxatul mooy alquranul karim bi nga xam ne war na ci mbooleem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu attewoo li ci nekk ak li koy leeral ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi ne wa haasa kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabiuuhu wattaqu laallakum turhamun kon dañu war a xam liñ seq ak alquran mooy ittibaa dañ koy topp wattabau nuur allazi unzila maahu fallazina aamanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuura alladi unsila maahu ulaika humul muflihun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gëm fonk ko dëgëral sunnaam di ko dundal jamono bu nekk sunnaam di taxaw waaye dañu topp lumière bi nga xam ne moom lañ wàcce ci moom te mooy alquran wattabau nuura alladi unsila maahu bala ngaa teg fenn sa tànk na nga ne tey am xoolu alquran ba gis fi mu leeral nga jaar foofu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli bu leen jiitu ci kanamu yàlla ak yonentam te xamagoo fooy teg sa tànk moo tax mu ne kitaabun ansalnaahu mubaarakun fattabiuhu jullit ñi nag loolu lañ dese ci alquran loolu ci manqué ittibaa boobu ittibaa boobu dañuy jàpp ne daal alquran ji moom xëy na téere barkeelu la léemaay la dëgg la loolu lépp ngi ci ndax mubaarakun lépp barke la muslaay la lépp a ngi ci waaye nag li ñu séq ak moom nag mooy ñu topp ko dafa am fu mu nu jëmale am fu nuy teg te nee na kat topp googa mooy tax ngeen yeyoo yërmande yàlla laallakum turhamuun borom del wax ne wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin ñett yooyu yëpp la alquran boole hudan boo ko toppee yaa ngi ci njub rahmatan boo ko toppee yaa ngi ci yërmande wa busra boo ci nekkee na nga xam ne ëllëg ci taxe nga jëm waaye nag lil muslimin ñu jébbal seen lépp yàlla nangoo womatu topp tere boobu kon alxuraan itam ne jullit bi yëg lu mu seq ak moom bul ñemee def lenn lu dul loo xam ne dellu nga ci alxuraan ba xam lu mu la ca digal boo xamul laajal ñi xam fas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bul jàpp ne da ngaa libre déedéet ndeg constitution yeeg luwaay yi ñu tëral rek la ñuy respecté ba loo wax ñu ne nekkul ci constitution bi wala nangam a ngi ci constitution bi diw day violé constitution bi constitution bi li liñ koy dégg liñ koy fréquenté ci lam yi doo ko déggee noonu alxuraan doo dégg ñu ne kii dafa violé violé alxuraan ah wala li nekkul ci alxuraan mais na daal dañoo indi leneen loo xam ne moom lañu teg ci kaw li nu borom bi tabaraka wa taala xàllal ci aw yoon mooy xukumal jaahiliya moo tax ma doon ab xukumal jaahiliyati yëpp wa man axsanu min allahi xukuman li xaw min yuqinuun waaye léegi da ngeen a ah addab kenn addab ku réer ku xamul dara ku gën a rafet boroom bi tabaraka wa taala abaate wa man ahsanu minallahi hukman ñetteel ba wala ñeenteel ba ci pas-pas bu wér bi itam gëm yonent yi yonent yi dañ leen di gëm ijmaalan waaye gëm tafsilan mu ci faram-fànce nit yi suñu borom tabaraka wa taala tudd seeni tur ndax am na ñoo xam ne rek minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka yonent yi am na ñu mën a nettali seen mbir waaye am na ñoo xam ne nettali wu mën a ko waaye ñoom ñëpp dangay ngay gëm ne rek ay yonent lañ nga gëm ne ñoom ñëpp dañu doon woote jëme ci dëgg ku leen wuyu da nga waaye ku wuyu wuuteeg ñoom bañ a topp lañu ñu danga da nga perte da nga yonent yooyu ki leen mottali te gën ca mooy muhammad ibnu abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi ne rusulan rabal naa ay yonent yu bari rusulan mubassirina wa mundirina li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul wa kaana allahu azizan xakima nee na yonente yi li tax ma yebal leen ngir nit ñi bañ a am lay bu ëllëgee ci kanamu seen borom naan yàlla kat nun xamunu woon loo loo bëgg loo digleeg loo tere nun xamunu ko woon kenn amul woowu nag li allaa yakuna linnaasi alallahi xujja baada rusul gannaaw bu yonent yi ñëwee kenn amatul lay yonent bi sallallahu alayhi bi ci mujj bi mu fi jógee nee na al ulama warasatul anbiya jamono bu nekk ay boroom xam-xam a fi yoo xam ne nee na laa tasaalu taifatun min ummati zahirina alal xaq lu mbir yi jaxasoo jaxasoo dana ci ab ab kuréel ci aw xeetam ñoo xam ne moom ci dëgg lañuy ñu nekk dañuy investir ci diine ji nekk ruu yi diine jiy demee waaye duñ dugg ci biir diine ji toog waaw am ñoo xam dañoo investir diine ji am ñoo xam dañoo investir ci diine ji dañoo investir seen bopp jox seen bopp diine ji mu di leen demee comme ni ko saxaaba yi defe diine ji kaw saxaaba yi la jaar jàll moo tax mu egsi fi ñoom dugguñu ci biir toog de di góoru comme ni mu xewee léegi nga xam ci biir diine ji la ñuy dugg toog di nguuru ci ngay ami kër ci ngay ami oto ci ngay am mbooloo mu la topp yow da ngaa nguuru ci diine ji waaw yaa koy freiné ah kon loolu mooy li nga xam ne moo war ab jullit mooy jox boppam borom bi tabaraka wa taala diine ji mën a dem te diine ci ay nit lay deme nag ci ay nit lay demee parce que borom bi ne jaahidu da ngeen di jihaad bi amwaalikum wa anfusikum innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu wa jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu sadiqun ki gëm yàlla dëgg dëgg dëgg te amu ci lu muy sikki sàkk day nangoo sacrifice wu joxe alalam joxe bakkanam bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu sadiqun nee na ñoo ñaa de kon ka ko nanguwul dëgguwul li muy wooteew kon dëgguwul loolu fokk ñu gëm ko ci yonent yi ñi nga xam ne tudd na seeni tur ci alquran ñooña ku mel ne Nuux alayhi salaam Huud Saalih Ibrahim wa xayruhum alayhim salaatu wassalaam ak yonent yi mu tudd yépp ci alquran ñooña nga gëm leen na mu leen tudde ña mu tuddul seeni turin nga gëm nañu am lañu ki ci mujj nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam kooku boo ko toppee rek topp nga yonente ci des yëpp laa def farriqu bayna ahadin min rusuli boo ko toppee rek yonente bi yonente yi benn benn benn kàlla rek boo xam ne keneen ku ñëw rek moo yoraale la ña ña ko jiitu woon ñëpp yor continuité la waaw charaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wallati awxayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddin wala tatafarraqu fii jenn jee rek jenn diine ji juróomeel ba mooy nag gëm bis bu mujj ba gëm bis bu mujj ba nag da cay dugg gëm mboolem li suñu borom tabaraka wa taala xibaare yonente bi sallallahu alayhi xibaare ko ne day xew gannaaw de ca nañu ko xibaare xam nga soo ne gëm naa yowmal xiyaam waaye gëme woo ko ni ko yàlla waxe yow yowmal xiyaam bëgg a gëm bokkul ak bi yàllay wax waaw yow ma yim wax ko bis ba yow ma nga ne haa mu ne laa tamliku nafsun li nafsin shay'an ah nga laa fa yaakaar mu ne la laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yow ma isin lillah yow balka am boobu dina yàlla wax moom xaw ma nekk sa bos yow waaw waaw haa mu ne la li kulli mri'in minhum yow ma isin bu keroogee ah sha'nun yuxnii koo fa gis am na projet tribunal ba dafa am projet xam nga avocat bu am projet tëru te pela del kenn ah. te bu fekkoon ne sax day da cay teel a pare attaqué sa bos waaye daf ne yuuxu nii yi da koo doy sëkk yuuxu nii yi li kulli mri in minhum yawma isin sha'nun yuuxu nii yi da koo doy du ko jeexal du ca pare boo ne soo paree soo pela del sa bopp war nga pela del ba maa ngi làqu sa gëddaw <laughs> du sotti mu def na man kay sa bopp laatal yowmal am boobu la yàlla parasant boobu lañ war a gëm doog a mën a am pas-pas boo xam ne bu wér la bokk na ca la nga cay gëm mi ngi tàmbalee ci bàmmeel laaj bi ñuy laaj nit ki ci biir bàmmeel laaj bi ñuy laaj nit ki xam ngeen bàmmeel moom mooy aéroport yow mal xeer waaw gars yi dañ lay embarqué gunge la nga dugg nga nga décollé waaw wàcce nga aéroport yow mal bu ñu la sóoree rek wàcce nga aéroport xam nga aéroport na ko fa wàcci dañ lay laaj sa passeport ndax am nga passeport ndax am nga visa léegi-léegi itam ñu laaj la adresse foofu jëm wala sax ndax yor nga devis yor nga dara ci xaalis ay rapport yomal xiyaam bi ku fa wàcc di bàmmeel dañu la laaj ñetti laaj dañu laaj ñetti laaj loolu ñu tuddi al usulu salaasa dañu laaj man rabbuk ku doon sa borom boo amuloon pas-pas bu wér bii di aqidatu saxiixa loolee nga doon booleeg yàlla loola ngay tudd ndax yàlla man nee na loo ma boole ma bàyyee loola boobaa dootoo xam yàlla boobaa fekkee da ngaa boole woon yàlla ak leneen yàlla moom day day dindi ba sax duutu ca mën a bokk fii moom da nga naan yàlla ak nangam yàlla ak nangam mais bu yomal xiyaamee nangam joojee doo nga cay des waaw loola rek ngay mën a tudd bu booba kay man a wax ne yàllaa doon sama borom mooy ki wéetaloon yàlla boolewu ko woon ak dara ñaareel ba ñu laaj la lañ moo doon sa diine maanaam yàlla moom comme moo doon sa borom noo ko ci loo ko doon jaamoo nga ne ci lislaam diina jëm tëral di lislaam inna diina inda allahi l islaam islaamam boobu ci laa nekkoon di ko ko jaamoo waaw ñu laaj la nag waaw loolu foo ko xamee ku la ko xamal moo tax dañ la laaj looy wax ci waajooju mu yónni woon duñ la tuddal tur wi de nga ne kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa wa rasula moo doon moom la yàlla yabaloon ñett yooyu ku ko topp rek da ngay texe yàlla na yàlla may ñu mën koo tontu moom la borom bi ne yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli saabit fi l xayaati dunia wa fi l axira waaye bala koo mën a tontu fi l axira nag da nga koy da nga koy saxal fi l xayaati dunia fi l xayaati dunia de fii ci adduna nga koy njëkk a saxale nangu ne loolu wér bu alaxira nga mën koo répété waat yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli saabit fi l xayaati dunia wa fi l axira da nga koy saxal ci adduna gëm ne bàmmeel am na mbugal am na xéewal gëm mboolem yi ñu xibaare ci yowmal xiyaam ci ay tartar siraat peese ba borom bi nee na al waznu yowma isinil xaq nee na keroog peese muy dëgg amul rek ñëw na nañ ma sottil noonu rek déedéet dañ koy peese de fa man saqulat mawaasinuhu fa ulayka hum muflixuun wa man xafat mawaasinuhu fa ulayka allasina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun mu jeex tàkk waaw peese rek al wasnu yawma isin al xaq wa nadau al mawasina al qista li yawmi al qiyama fala tuslamu nafsun shay'a borom bi nee na balance yu équilibre yu exact lay teg du bàyyi dara nadau al mawasina al qista li yawmi al qiyama fala tuslamu nafsun shay'a loo def ci tuyaaba lu mu tuuti tuuti tuuti balance bi dana ko génne moo tax mu ne wa in kaana misqaalu xabatin min xardalin atayna biha wa kafa bina xaasibin lu mu tuutee tuutee tuuti lu xar ba mënatu la xar fépp suuf nga di ko xar ba mënatoo ko xar ñu ko tuddee xar fil nee na borom bi ne dinaa ko andi fay la ko waaw man yàlla naa leen doy ci ci calculer wa kafa bina xaasibin waaw xaasibin yàlla day comptabiliser lépp loo am ñu génneel la loolu itam nit ki daf koy daf koy gëm gëm rek la réglé bi ñu lay réglé mooy sa téere yi la malaaka yi doon bindal la ñuy comparé ak téere bi yàlla wàcce woon ci yow waaw borom bi wax na ko bu yowmal xiyaamee dana bi xaq waaye inna kunna nastabsiqu ma kuntum taalamun wa tara kulla ummatin jaasiya kull ummatin tud'a ila kitaabiha léen bu yomal xiyaamee da ngay gis xeet wu nekk Moussa alayhi salaam taxaw nekk xeetam di xaar jugement Isa alayhi salaam taxaw nekk xeetam di xaar seen jugement yonente bi sallallahu alayhi salaam taxaw nekk xeetam di xaar jugement kullu ummatin tud'a nag ila kitaabiha ku ñu woo ci tribunal bi yonent bu ñu war a juger xeetam bu ñu ñëwee téeréem la ñuy fekk ci kaw taabal ci bu ñu woowee xew yonent bi sallallahu alayhi salaam bu ñu ñëwee kaamil bay tege kullu ummatin tud'a ila kitaabiha borom al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun soo ñëwee nag mu ne la haata kitaabuna man yàlla de lii mooy sama téere bi ma wàccee woon ci yéen yamtixu aleykum bil xaq dëgg nag lay wax yéen it li ngeen doon jëf doon ko bind ko doon ñi ko doon sotti inna kunna nastansixu ma kuntum taamalu waaw léegi sa téere ngi sa téere moom yaa yàlla alquranam la moom yow téere bi la malaaka yi bindal mooy sa téere iqra kitaabaka kitaabaka lañ la wax yow la ko malaaka yi bindal yaa ko dicté yaa ko taalif su dee kenn ku ñu naan laaj la nga ne man binduma téere bind nga téere de waaw war na ay secrétaire yoo xam ne bis ñu ngi bind rek bis dana la am sa téere fa amma man utiya kitaabahu bi yamini ko fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura waaye wa amma man utiya kitaabahu dégg nga kitaabahu de téeréem waraa zahrihi fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira waaw ñaar kenn ku ne am nga kitaabahu bi waaw sa téere boobaa nag lu ñu gis ci sa téere xool ba xam am na lu ko justifié ci alquran ñu ubbi sa téere gis doon na julli ñu xool alquran gis wa aqimu sala ñu ah kooku wala bal la teg leen teg xool sa ñu ne wooroon na ñu ubbi alquran gis kutiba aleykum siyam ñu ne wala bal la waaw waaye ubbi nañ téere ba waa naa naanoon na sàngara ñu ubbi alquran gis inamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaam rijsun min amali seytaan fajtani boobu la àllakum tuflihun ñu ne boobu sayi ala teg leen fee boo dëppoog alquran daal xasana la boo jóyoog alquran sayi ala buñ noppee nag la sayi at yeeg waaw bu wat rek nga teg bu xasanaat yi watee nga teg bu say at yi watee léegi yërmande yàlla ci des waaw rek la de loolu mooy xisaab bi mooy xisaab bi loolu itam jullit bi daf koy war a gëm looy def lu ne bu leen jàpp ne romb yow borom bi ne ahsaahu laahu wa nasuuhu yàlla ne li def fi mu koo ci laajoon lu mu defoon daaw fàtte na ko borom bi ne fàtte ngeen ko waaye man maa ngi ko denc ahsaahu laahu yàlla takk na ko denc ko waaye ñëw wane nasuuhu fàtte nañ ko waaw luñ def day def njeexum bu rëy fàtte ko ne waaye mbambu rëyul rek bàyyi bu jàll jàll mel ñu ne gracier ko blanchir ko laver nañ nañ ko loolu daal dafa ak ngone la woon nag nangam nangam rek passé na borom bi ne mi ngi fiy tege de ahsaahu llahu wala su wallahu ala kulli shay'in shahid yàlla lépp la tewe kon loolu fokk ñu bàyyi ko xel bu baax muy yooyu ñu wër a gëm yowmal xiyaam bokk na ca déggu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko borom bi tabaraka wa taala jagleel nga xam ne ku ca naan du doo mar ku ca sangu itam du doo tilim bokk na ca lañ ca war a gëm itam gis gi ñi gëm yàlla di gis seen boroom ñoom ñi gëm yàlla amma ñi nga xam ne moom gëmuñu yàlla ñooñu moom duñ ko mën a kàlla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuun juróom-benneel ba ci ponk yi tax ngëm yàlla wér mooy nag gëm ab dogal gëm ab dogal nag day ëmb ñeenti mbir gëm ne suñu borom tabaraka wa xam na lu nar a nekk ak bu nekkee nan lay nekke xam na mboolee mbiri jaam ñi xam na seeni wërsëg seeni fan seeni jëf dara borom bi tabaraka wa taala dara ump ko ci inna allaha bi kulli shay'in alim loolu jeexal na lépp bi kulli shay'in alim li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma yàlla lépp peeg na ko ci xam-xamam ñaareel ba ñu gëm ne borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu dogal li nar a am yépp bind na ko qad alimna ma tanqusu l ardu minhum wa indana kitaabun xafiz indana kitaabun xafiz borom bi nee na maa ngi téere boo xam ne day denc lépp day sàmm lépp ñetteel ba ñu gëm ne coobare suñu borom tabaraka wa taala luy wéy la li ko soob rek loolu mooy am fa ma saa kaana wa ma lam yasa lam yakun inna allaha yafalu ma yasha yàlla lu ko soob lay def te yéen sax lu leen soob day fekk mu soob yàlla wa ma tashaauna illa an an yaqulu lahu kun fa yakun kon lu mu bëgg mu am rek loolu dafay am ba gëm ne bi tabaraka wa taala moo bind mboolem lu am amul keneen kuy bind ku dul moom hal min xaaliqin ndax am na keneen kuy ab bindkat ku dul ku leen mën a wërsëgal laa ilaha illa hu fa anna dana tàbbi ci pas-pas bu wér boobu itam gëm ne ngëm yàlla wax la ak jëf ba demee ci borom risaala risaala bu ibnu abi sayd bi ñuy faral di jàng fii ca muxaddima te muxaddima ba nekk aqidatu ahli sunna wal bu wér bu leer nañ boo xam ne yàgg nañ koo jàng ci réew mi mais ñu bari dañ ko dul dégg ko dul dégg waaw daf ne laa yasixu xawlul imaani illa bil amal wala yasixu xawlun wa amalun illa bi niya wala yasixu xawlun wa amalun wa niyatun illa bi muwaafaqati sunna bu demee ca risaala lee fa nekk ñeent yi ngay boole sa ngëm yàlla doo ko wér nee na waxe kese gëm naa yàlla te jëfoo du wér nga wax jëf te fasoo ko ci sa xol am yéene ju sell du wér nga wax ko ci sa xol sa làmmiñ jëf ko ci say cër fas ko ci sa xol te waaye nag dëppoowut ak sunna du wér waaw fokk day dëppoo ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam defe woon moo tax mu ne wala yasihu xawlun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunna yàgg nañ ko jàng ci réew mi kenn du ne téere bu bees la téere bu weex la téere bu xonq la yàgg na mag ñëpp ko jàngale ah mi ngi fi leer na pas-pas bu mën a wér lu dul dafa dëppoo ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ak i saxaabaam ci lay doog a mën kon ponk ñetteel ñeenteel boobu mu ëmb lépp kon fokk ñu gëm ngëm yàlla dafay dolliku ci ay jëf yu baax ndax ngëm yàlla garab goo jëmbat la rek ndox mi ngi koy suuxate lu mu gën a sell gën a bari garab gi gën a màgg wa isaa tuliyat alayhim ayatuhu saadathum imaanan wa yasdaada allazina amanu imaanan waaw moo tax naafiq yi bu aaya ba saan waaj ñu naan ayukum saadatu haasihi imaanan ñoom xam nañ ne aaya daa war a li ngëm aaya dafa mel ne taw alquran bi mooy taw bi bu tawee ba pare war nañu la garab yi laa yëngu ci seen biir waaw gan garab la ci taw bi dolli naataange ah garab yi ci jeeb bi di dund moom ne ah nun de yëg nan taw bi waaw ah, waaye garab ya ya dee moom nun ne nu taw bi dañoo gën a nëbal <laughs> fa ama alladina amanu fa saadathum imaanan waaye wa ama alladina fi qulubihim maradun fa saadathum rijsan ila rijsihim wa maatu wa hum kafirun waaw alquran su ñëwee ku mu fekk sa xol di dund ngëm yàlla nga dolli waaye ku mu fekk ne gëmoo yàlla moom dangay gën a wedd yàlla ñu mel sa garab garab gu dee ba pare taw taw lu mu koy gën a def da koy gën a yàq rek garab ga woo kooku lu mu gën a taw rek day gën a nëb waaye garab gi dund tooy nag moom lu mu gën a taw mu gën a dund moo tax borom bi tontu leen naafiq yi laajante di ko ba sant naan waaye aaya bi mu jàng léegi est ce que yow yëg nga dara ah man de na ma meloon doog nga laa def waaw man de man de dolliwu ma dara ba waaw suñ borom ne waaw fa ama la si ne amono de ñoom fasaadatum imaana ñim fekkoon ñu gëm yàlla seen gëm yàlla yokku na waaye ñim fekkoon seen xol feebar wa ama la si ne fii qulubihim maradu fasaadatum rijisan ila rijisin rek la moo tax kon loolu man nga cee natt sa yàlla boo déggee ñuy jàng alxuraan toog ci jotaay yu mel nii nga toog ba jógee ah man de na ma meloon man de man de dolliku ma dara ma waaw waa ji waxu fa dara waaw defe na moom day mën a andi lu bees li fi nekkoon rek moom bi ne taw bi taw bi tawoon daaw rek mooy tawaat rek waaye daaw taw bu kii nga tey taw bu xonq na taw ndaw mu xonq wala ndox mu mel nanga ndox mi tawoon daaw rek lay tawat waaw alxuraan ji di fi nekkoon la ñu waxtaane woon daaw dong la ñuy waxtaane waat ren fa inna zikra moo tax borom bi tudde ko zikra wa zakir fa inna zikra tanfau al muminin ah zikra zikra bu kon mu li tekki mooy jaaroon na fi dañuy fàttaliwaat rek jaaroon na fi waaye day jariñ ñi gëm yàlla kon dugg na ci ngëm yàlla itam pas-pas bu wér ngay bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla bul bëgg nit ngir sa bànneexu bakkan ngir ne defal ne ma léegi defal ne ma laa ma ne sa intere bopp yow nga jiital ci bopp suñu borom tabaraka wa taala yow comme da ngaa investir ci dina jox sa bopp yàlla sag bëgg léegi mooy ku yàlla bëgg sag bañ mooy ku yàlla bañ bul xool ku la amal njariñ lu teew wala ku la xañ njariñ lu teew ki ngay féeteel di ko faral ak ki ngay noonool lépp na dellu ci borom bi tabaraka wa taala waaye bul yor sa nattukaay bopp day gëm bëgg ñi gëm yàlla pas-pas bu wér bi soo ko yooyee da ngay bëgg ku gëm yàlla donte yóoralu sax njariñ bu mu lay jariñ ci àdduna wala donte sax ak ñàkk xamam sax na sax mu lay lor waaye nag ak ngëm yàlla moom sax na xëy na ay jikkoom wala melokaanam moo am lu ca des loola bu mu ko bañ ngir sa intérêt bopp naka noonu itam ka noonu moo xam da lay campagne moo xam lu tax waaye mu lay jariñ njariñ yu àdduna yu teew yu bari itam boo yëgee bëgg nga ko ci sa xol rek yëgal ne kon ngëm yàlla dëgërul ci sa biir xol ngëm yàlla bu dëgër ci xol day rejeté képp koo xam ne gëmul yàlla waaye itam day accepté képp koo xam ne ku gëm borom bi la tabaraka wa kon yii yëpp la nit ci boole doog a mën a am pas-pas boo xam ne mooy pas-pas bu wér amaa nag pas-pas yi nga xam ne mooy safaana mooy pas-pas yi jàdd moom ay xeet yu bari la bokk na ca ñiy jaamu ay xërëm moo xam ba bu ñu nee al wasan bu ñu al asnaam moom mooy xërëm yoo xam dañu ko matérialiser moo xam ay statues yu ñu tabax la wala ay kuur yu ñu samp la wala ay njaq la wala ay garab yu ñuy wër la lépp loo xam ne lu ñu mën a laal la di ko jaamu rek sadaf lay tudd bu fekkee nekkul lu ñu mën a laal rek ab gëm-gëm la loolu moom wasan la wasan ya la moo xam ay. nit ñun jàppee nit ñu baax lañ moo xam ay jinne lañ moo xam ay garab la moo xam ay xeer la yooyu yëpp koo xam ne yaa nga cay gëm di ko jaamu kookee wuyuwul woote yonente yi alayhimu salaatu wasalaam borom bi dafa wax lu leer parce que nit ñi li leen di faral di jaaxal mooy dañuy jàpp ne ku yàlla jox cër wala boog ñoom sax ñooy yaakaar léeg-léeg ne kii yàlla jox na ko cër fekkoon ne sax dañoo dem ba am ci preuve bu leer borom bi ne maa kaana waaye bopp man day nafar bu baax amul benn mbindeef bu sañ an yutiyahu llahu alkitaaba walxukma wannubuwa summa yaquula linnaas koonu ibadan li min dunillah ak loolu cër bu la yàlla mën a jox taxul nga ne nit ñi nekk leen samay jaam bàyyi yàlla maanaam yéen joteetu leen ci yàlla ci man ngeen jote waaw yem leen ci man man maay jàllale mbiri ci yàlla nee na kenn sañul loolu nee moo xam kitaaba la ko jox xam-xam foofu la yem téere bu yàlla wàcce ci yow wala xukuma la jox pouvoir boo xam ne yàlla la nit ñi fëlu ñu la waaye yàlla duñu wala jox pouvoir wala mu jox la nubuwa te mi ngi yem ci nubuwa nubuwa mooy cër bi gën a bu nit ki mën a am ci yàlla suñ borom ne yii nag kenn taxul nga am ko tax nga sañ ne nit ñi jaamu leen mu bàyyi yàlla waaye da war a utiliser yooya def nit ñi jaami yàlla walakin koonoo rabbaani yiin danga naan ni ñi koonoo rabbaani yiin nekk leen jaami yàlla soo bëggee ñu nekk jaami yàlla nooy def bi ma kuntum tuallimuuna alkitab wa bi ma kuntum tadrusuun moo tax ku mbooloo topp soo bañee ñu jaawale la yàlla da nga leen di jàngal boo leen jàngaleek ak alquran ak sunna rek mooy ñu seeni seen i bët ne xefeet xool xam nga bu ñu xasee xool rek xool alquran xool la rek dañ daan di xam foo toll fekkee xamuñu alquran rek yow rek la xool duñ xam foo yam duñu xam fooyam moo tax borom bi ne su ngeen bëggee ñu nekk jaami yàlla bañ leen a def yéen palaasu yàlla da ngeen leen di jàngal alquran jàngal leen lii leer bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba bi ma kuntum tadrusuun wala yamurakum an tattaqisul malaikata wa nabiyiina arbaaban nee na bu leen kenn digal ngeen di jël malaayika yi ak yonent yi di leen def yàlla te ñoo ñoo gën a màgg nee loolu ku la ko digal a yamurukum bil kufri baada is antum muslimun mais ku ne la jaamul malaaka ndax daa baax du mooy yàlla waaye jaamul yonent bi ndax moom la yàlla tànn nee na kooku delloo na la ci kéefar waaw ndaka moom nag kon ku la bëgg a tegal koo xam ne jégewul ñooñu fenn kon kooku moom ci loo dellu bu amoon lu yées kéefar kon ca loola ngay ne moo tax yonent yi dañoo ñëwoon di leeralaat nit ñi cosaan li nga xam ne ci la leen yàlla bind muy wéetal borom bi tabaraka wa taala ka ca mujj di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi mu jamono leen toloon ci waa Quraysh ak ña meloon ne ñoom nga xam ne dañoo amoon leneen luñ gëm di ko jaamu jàpp ne loolaay faj seeni aajo mooy faj seeni malaat moo leen di dimbali ci seeni noon di ko rendil di ko wër di ko jaamu ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yëpp kenn waru koo jaamu yàlla rek lañu war a jaamu dañoo jaaxale ne ajaala al alihata ilahan wahida ñu ah lii nag di kenn mësu ko moom ne ne yàlla yi benn yàlla a léegi te ñoom li ñu amoon kenn xamul nu mu toll lenn lu ne wutaloon nañ ko yàlla ju koy rek comme ñu borom bokkaalekat yi fi mu ne koo gis ku bokkaale bokkaale mënta doon benn ku fi bàyyi yàlla rek doo a jàpp ci lenn da ngay dégg ku naan léeg lu amul soxlawu ma boo nekkoon yëkkati sa loxo léegi léegi nga gis ndomba goo xam ne diw moom la bind ko waaw keneen a ko ko jox te moom nee na diw lu amul soxlawu ndax day yëg ci fitraam ne diw moomu doyut léeg-léeg mu am soxla boo xam ne da koy lenn ah kooku rek de moom nee nañ suñ suñ diw mu sàngam moo ca aaju waaw ah, kooku moom sama waa ji ci nangam la ay waaye waajee moo ay ci nangam kenn kon lenn lu dinañ ko ci aay waaw ate nga dem ci yàlla mi aay ci lépp ah <laughs> yàlla mi aay ci waaye lenn lu ne nga ne diw sàngama ci aay ah, bu dee wërsëg di wa ci aay bu dee ku amul doom bëgg am doom di wa ci ay nga tukki ñibbisi di ci aay bayre di wa ci aay koo leb mu lebal la loo jaay mu jar di wa ci aay moo tax yu baree baree baree bare koy séddali ko moo tax borom bi innahu man yushrik billah fa ka annama xarra min alsama fa taxtafahu tayru aw tahwi bihi riixu fi makanin saxiq nee na ku bokkaale yàlla boo ngeen ko bëggoon a xam nee na mi ngi mel ne ku ñu yéegal ba ci asamaan si masalan tey comme parachutiste yooyu ni ñuy wàccee ñu bëmax la ngay wàcc ngay xalaw xalaw yi ñëw waaw jàppul ndax ci jàpp fu dëgër bil urwatil wusqa wa man yakfur bi taaqut wa yu'min billah kooku faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisaama laha ki weddi taaqut gëm yàlla kooku téye fu dëgër waaye wa man yushrik billah moom nee na jàppul fi dafa ka annama xarra min as-sama dafa mel ni kuré ci asamaan di xalaw xalaw yi ñëw nee na ñaari mbir a mën a am nag benn ay picc dogale ko seddoo ko picc mi yóbbub loxo picc mi yóbbub tànk picc mi yóbbu bopp waaw mooy sëriñu tariyaax yi jabar yi noonu ñuy séddoo waaj kii ne maay client am ci nangam kii ne ko maay client am ci nangam kii ne maay client am noonu lañ ko séddoo fa tax tapaxu tayru picc yee koy séddoo wala boog sax ñooñu mënuñu koo dévier waaye mu topp bànnee xam ba sànk yàqu complètement aw tahwi bihim riyahu fi makaanin saxiir bokkaalekat moom nee na ñaar yi rek la mën a mujj waaw benn muy ku gëm ñooñu ñu dévier ko faje ko seeni soxla lu mu am ñu ne ko lu mu soxla ci ñoom lay dem wala sax mu doon ku dër boobu koo xam ne gëmu leen ndax am na ñoo xam ne ñu ñooñu seen bànneex seen bakkanu bànneex rek lañ lañ gëm ña nga ca hôtel ya ña nga ca baar ya ña nga ca yooye rek ba xëy al moo tax mu ne aw tahwi kooku bu ko picc yi séddoowul muy xalaw xalaw ba daanu ci pax bu xóot ne la benn bu egsi dañ koy séddoo wala mu daanu bu daanu ci pax bu xóot moo xam ne du jógaat lay daanu aw tahwi bihi riihu fi makaanin saxiiq saxiiq mooy makaan bu xóot ci lay daan bokkaal noonu lay foofu la foofu la yóbbe nit kon euh, pas-pas yu wérul yooyu gannaaw bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale tawxid ba mu leer waaye bànneexi doomu aadama yi dañuy jël si waat rawatina nag ba ñu mujjee nag di ko jaare waat ci biir diine diine gi ñu waroon a def jumtukaay bi ñuy jubale léegi am ñu ko wëlbati def ko jumtukaay bu ñuy réeral xam nga kon gindi ko day jafe da su fekkoon da ngay réer sa réeru bopp fële bàyyi diine mais ci biir diine ngay ñëw di ca réeral nit ñi di ca manipuler nit ñi ci turu diine xam nga ñi xamul diine te bëgg ko naw ci kuñ jàpp ne moo leen ci raw daf ci yomb rawatina ñu terroriser leen ci ba doo laaj doo ne li ma doo ne kay fa waaw lii lu tax walla nu mu demee doo ko te alxuraan yes aloo naka lay la feese yes aloo naka nangam yes aloo naka nangam waaye ñooñu bëgg a dewee koo ne woon dama lay laaj yes aloon naka ñu ñu feese gimiñ waaw nga lu tax nga di ko laaj waaw wala mu def nangam ba pare nga ne ko loolu moom fu mu tegee luy dalil la ah luy dalil la sëriñ ba toog mbooloo mépp wër ko sëñ bi addis addis ba noppi na ko sëñ bi li nga wax léegi laa lay laaj foo teg kon boo tuur boo tuur doo ñibbee ay dàll boo tuur waaw doo ñibbee ay dàll waaw xam nga loolu nag te yonente bi sallallahu alayhi wasallam kay mooy sëriñ bu mag te yes aloo naka yaa ngi fi yes aloo naka anil yatama yes aloo naka anil xam loolu mooy sëriñ yes aloo naka anil ahilla yes aloo naka anil anfal yes aloo naka yes aloo naka ah fii nañu ne bu kenn yes aloo naka kooku du sotti la soal comme jawaab amul moo tax ñu ne la soal yonente moom dafa am jawaab ki amul jawaab nag pour mën a ñàkk jawaab gi man a feeñ moo tax mu ne laa sual waaw gannaaw laa jawaab laa sual <laughs> loolu loolu moo ko cee génne kon gannaaw bu fa nit ñi bàyyee pas-pas bu wér bi ci lañ dem borom bi ne yaabuduuna min duunillah maa laa yadurruhum wala yanfa'uhum dañuy jaamu loo xam ne du yàlla mënu leen a lor lor ju yàlla àndul mënu leen jariñ njariñ lu yàlla àndul ba noppi nag ñu nomeel seen bopp ay rammukat wa yaquluuna haulaai sufaauna inda allah ah ñoo leen nome de haulaai sunu gaa yi sufahauna inda allah borom bi laaj leen waaw atnabbiuuna allah bi maa laa yaalam léegi da ngeen di bëgg xamal yàlla lu mu xamul moom ah ku mu nomewul moom dafa ko rammukat ngeen ne ko rammukat la lu rek ñu ne woon Macky Sall rek sëñ bi mooy suñu préfet waaw Macky ñëw fi ñu koy gàll na ko nuyoo ak préfet suñu préfet bi waaw nuyoo bi mu ah da nga kii mooy seen <laughs> moom xam yi yëgul ne yëgul ne moom moom numewu ko moom waaw nun noo ko numeel suñu bopp est ce que dana ah yow itam yàlla nga koy présenté ne ko yàlla day kii mooy rom ne wa atunabbi'uuna allaha bimaa laa ya'lamu fi samaawaati wala fi l ard subhanahu wa taala amma yushrikun bi dellu wax ne te lañ koy laayaale nag mooy ñii sax jàppewuñ leen yàlla waaye ñooy dox suñ digganteeg yàlla wallazina taxasoo min dooni awliya dañ lay wax ne ma naabuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi sulfa ñun kat ñi jaamuwuñu leen waaye comme ñoom ñoo nu gën a jege yàlla waaw kon leen kon loo ci xam ne moo la gën a jege yàlla hmm? ñun ñëpp fi mu ne ci salle deg same lañ nekk salle deg same lañ nekk fi mu ñëpp nag adduna salle deg same la inna ja'alna ma ala al ardi sinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala waaw salle d'examen bi nag ñu loo fi naw naw mbindeeg lu mu rafet ak nga jàpp ne kii te corrigé guñ ko comme corrigé guñ ko nga bëgg di jàpp ne moom moo jël premier waaw te kenn corrigé gu ba tax yow nga daal di bëgg a lem say fooy ne yow ci moom ngay topp jéematoo bind ndax jàpp nga ne kii daal moom at mi loolu am xel mu wér na ko bokk na ci pas-pas yi nga xam ne pas-pas yu wuute la ak pas-pasu tawxiid ñenn ñiy fas ne ñi ñuy tudde ay awliya te awliya léegi bu jëkkoon sax dañ ko daan natte ci daa bari xam-xam daa ragal yàlla day julli daa bari naafila waaye léegi wàllu yi moom ñu ngi koy natte ci aw sant rek diwa ko jur nangam la sant waaw noonu la koy présenté kon wàllu yu waaw kon wàllu yu ba noppi ne daal di koy jox cëri yoo xam ne nag mooy cëri suñu borom tabaraka wa taala jàpp ne moom mën nay def mën nay jindi mën naa jokk wërsëg mën naa guddalu ku ko merloo mën na koo gàttal lépp loo xam ne ci borom bi tabaraka wa taala lañ ko waroon a wut ñu jàpp ne mën nañ ko wut ci kaw moo tax dañuy wax ne bokkaalekat yu jëkk ya ñoo tane sax bokkaalekat yi léegi ndax ñooñu bu jëkkoon ci ruboo bi muy sañ-sañi suñu borom yeeg man-manam yi moom daawuñu ko jox keneen borom bi wax na ko fa isa rakibu fil fulki daawullaha muxlisiina lahu diin buñ masaa dugg ci gaal gaal gi nekk ci digg géej gi géej gi jaxasoo dañuy woo yàlla sellal seen tawxid léegi nag bu boobaa fi mu ne boo ci nekkoon tey nit ñi kenn ku ne yaa ngi dëgër la sa ndomba di xëccal sa cëwri wala ngay woo ka nga xam ne moom jàpp nga ne moom mën na laa xeetale ko bokkaali kër yu jëkki daaw ñu def loolu falamaa najjaahum ilal barri nag idaa hum yusrikuun bu ñu masaa mucc ba wàccaat la ñuy doog a bokkaale ak yàlla waaye rubuubiyya moom muy sañ-sañi suñu borom yi moom boo leen masaa yàlla lañ koy delloo wala in saaltahum man nazala min as-samaa'i maa'an fa ahyaa bihi al-arda ba'da mawtihaa la yaquluna Allah dañ naan la yàlla waaye fii ne léegi boo naawate nawet bi fi mu ne ah ñaanu diw gaa de diwoo ko ñaan de nawet bi mënul woon a ñàkk a baax waaw waaw nawet bi yëpp ñu delloo ko ci ñaanu keneen diw kay ñëwoon na nawet bi day baax te bu baaxul kan ñu ne ci yàlla waaw kenn du ne diw waxoon na ko waaw qul alhamdulillah bal aksaruhum laa yaqiluun am maa nag ku am pas-pas bu wér bi ba noppi nag am na yeneen yi ñu waxoon ci tàmbali bi ne da koy firi yooyu mat naa jàpp borom xam-xam yi bari na waaye dañ ko tënk ci fukk fukki mbir ba ci jiitu mooy shirk bi ñu doon wax léegi bokkaale bokkaale nag soo ko bëggee xam mooy lépp lu yàlla digle ne moom nañ ko ko defal soo ko defalee keneen boole ko ko moom yaa ngi bokkaale soo ko defalee keneen sa boole woo ci yàlla nag kooka rek kon ngay jaamu te jaamu kooka ak boole ko yàlla di jaamu benn ba ndax yàlla moom du nangu ñu koy boole kenn ala lillahi diinul xaalis du nangu ñu koy loo kooko booleel mu bàyyee ko loola bokk na ca yaakaar ulayka yarjuuna rahmatallah kuy yaakaar yërmande yàlla ngay yaakaar te da ngay dégg ñu ne jiw mi ma yaakaar wala ñu kuy communiqué naan ñi ma yaakaar mbooleem ñi ma yaakaar o oh, luñ la yaakaar bu dee fii ci na yow yaa leen yaakaar ah bu dee ci àdduna moom yaa leen yaakaar ndax fa nga toog yow xëyoo góntoo ba noppi yor dépense boo xam ne ñëpp dépense kon gars yi rek nga yaakaar ñu ñëw kay kon addu moom yaakaar àllaaxira ja ngay wax na bu fekkee foofa lañ la yaakaare ah, moom boo wéeteeg sa bopp da nga xam xel yow foofa loo am sax xamagoo kon yaakaar borom bi tabaraka wa taala la ragal ragal wolof moom yëpp ragal la koy wax am lu ñuy tuddee rëhba am lu ñuy tuddee xasiya am lu ñuy tuddee xawf waaw wolof nag yëpp ragal la koy firi te benn bokk ci sa borom bu dee rëbb moom la borom bi ne wa iyaaya farhaboon wa iyaaya man yàlla farhaboon mooy ragal bu àndul ak benn menace waaye daal nga jàpp ne waa ji am na baatin boo xam ne waa joo xam ne maa ngi ca Casamance tëb ko la ne la yow doo dëgg bàq ngay pat pati nag waa ji nee na du ma dëgg bàq waaw man kay xaw ma fu ma jëm waaw yóbbu amul benn menace fa mu toog la toog rek nga jàpp ne yow na baatin boo xam ne moom mën naa tasaruf ci yow kooku mooy rëbb ba xas yee nag moom mooy ragalu toroxlu mu ñu ne ko ne yott ci kanam am xam ne bu ñu doon ne yott ci kanamu sëriñ bi wax sax duñ boo leen doon wax loo sax dañuy loxo te xam nañ ne sëñ bi du police tëjewul kese dumaawul deful dara kooku xas ya la ragalu toroxlu la ragalu xawfu nag mooy ragal bi nga xam ne moom ànd naag menace moom waaye bi génne ba seet jaasu nga ragal kooku moom ragalu naturel la war ngaa def loola musal ci loolu daw nga ngay daw wala arrière nga nga arrière kooku tekkiwulu ragal goo xam ne gu aay la kooku ragalu te jéem a défendre sa bopp la am maa nag mu dem ba jekkul nag bu sës la fenn nag ne la léegi moom xam nga ne amatoo yow fenn foo jëm maa yore say mbir boo daal nangoo loola jàpp ne moom asbaab yi jeex na jekku na la loola googa ragal nag mooy ay bu boobaa bu la jekkoogul moytul sa kem kàttan gis nga Moussa ba ko fi aw na dëlmal see borom bi def ne ko anisir bi ibaad yi lay lan demal dawal bu fi toog di xaar xaar fi aw na fi aw na ak armée bi mu yor ak li nga yor te yow amuleen doole bu ngeen fi toogee naan yàlla leen àndal di joxee dog di werd ba firaw na yegg si seen kaw da leen di baatale sabablu leen adduna da ngay sabablu comme booba moyen bi ñu am mooy déplacé wu ñu déplacé wu di dem di dem di dem dem ba moyen bi jeex ndax sës nañ ci géej moyen yi moom jeex na ndax géej goo xam ne amoo bato amul pont moo tax borom ne nit ne ne ko innaa la mudrakoon Moussa firaw naa ngi nii innaa la mudrakoon bay boo nu yëkkati suñuy loxo rek jëpp ne firaw na noo ngi nii waaw Moussa ne leen kallaa xalaatuma ñu ne ko Moussa foo ko teg mu ne inna ma'iya rabbi sayahdi waaw inna ma'iya rabbi sayahdi waaw kooku te booba xaw taxaw na géej gaa ngi ci sa kanam firaw naa ci sa gannaaw te ak gisoo benn moyen bu teew waaye yàlla nag da jox dara di la ko joxaat comme yaa booba yàlla jox na leen espace bu def seen diggante géej gi moo tax même géej gi parce que ñooñu moom booba dañoo jub géej gi ay mètres yi sësatuñ ci géej gi te yàlla li fekk géej gaa ngi des ab diggante boo mën a dox rek continuer dox bari na kuy ñaan loo xam ne yàlla dala koo jox ba pare fekk jeexul du la joxaat waaw dafa ne laa yukallifu llaahu nafsan illa ma aataaha sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusra yow nag léegi da ngay ñaan yusru defe ne usru am na te fekk ne ba tey yaa ngi ci yusru waaw maanaam ñu woon niir bee di géej gi ñu taxaw fii naan yàlla saa yee dimbalin te dañ desee juróomi mètre yu mat nan dox juróomi mètre yi dañoo dox bay commencé seeni i tànk di tooy ci géej gi mu doog def annisri an rib bi asakal baxar ani rëj bi asaakal baxara bu sori woon géej gi dana ca mën a dóor yat bu ko daande woon dix mètres rek bi ca mën a dóor yat bi booba tiim na ndox mi ñëw na ba tiim ndox mi nga xam ne kon jeex na takk amatu espace amatul fu mu jaar dem foofu nag na say foofu nag osuru ñëw na yàlla andi yëfu laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha waaye sagoogu mu ci def na gars yi jàng ndax mu xam nañ ko sagoogu day xaar de sayed alullahu sayed alullahu yàlla xal set naa def siiru service la comme sa yaqulu sufa sa yeej alu gars dañoo bëgg rek ñoom yeej alullahu directement bañ fay dugal siiru sa yeej alullahu baada usrin yusra kon loolu mooy tawxid bu ma sëkk boo xam ne loolu lañuy jox borom bi tabaraka wa taala bañ a bokkaale kon bu njëkk bi mooy bokkaale borom bi ne dana jéggale bakkaar bu man mën a doon nit faatuwaale ko budul bokkaale ci ku ko sopp waaye nag bokkaale moom du ko jégg ñaareel ba mooy koo xam ne dafa wut ñu mu doxale digganteem ak yàlla buy ñaan ñooña lay ñaan buy wut ndimbal ci ñoom la koy wut buy wàkkilu ci ñoo lay wàkkilu te xamuñu ne yàlla ci yërmandeem digganteem ak nit ñaari ligne la ligne boo xam ne direct la ak boo xam ne indirect la moom bu la soxlaa du direct ci yonent bi la koy jaarale wala ci borom xam-xam yi maanaam boo fi toogoon naan dama bëgg daal toog yàlla wax yu ma wax ma lu mu soxla ci man doo moom lettre la la bind yàlla mu bind nañ ñëpp lettre yaay dem jëli lettre bi lettre bi mooy alquran demal jàngi ko wala nga wut ku ko jàng mu nettali la ko waaw ndax moom saa si boo ci jotee baax na yàlla nga dund juróom-ñaar fukki at ba mel ni at dese la nga doog dugg ci lislaam mel ni at moomu ak nga juróom-ñaar fukki at yëpp nekkoon ci lislaam ñoo yem ci moom waaw benn bis doom nga def am na ñoo xam ne sujjootuñu sax benn sujjoot doog a faatu am na ku tuub rek dem ci jihaad bi daal di faatu waaw te teewul yàlla dafa nangu léppam amaa yow nag comme sa mbir dafa urgent da ngay soxla yàlla direct moo tax mu defal la sa digganteeg moom jaariwul fenn ma ligne bi direct moo tax mu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi mën nañoo jàpp ne comme yow laa yónni ci ñoom ñoom itam bu ñu ma soxlaa ci yow la ñuy ñëwaat ne ko wa isa sa'alaka ibadi anni ne ku soxla yàlla nooy def na nga leen xamal ne fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibu lii wal yu'minu bii la'allahum yarshudun bu ñu la laajee ku soxla yàlla nooy def ndax day dem ca diw sàngam wala day bu fa nekkatul mu dem ca bàmmeel ba wala naka lay def yàlla ne dama jege naa ñëpp ndax nu aqrabu ilayhi min hablil warid ujibu daawata daai isa daa boo xoolee foofu yàlla ni mu fi jëfandikoo première personne de pour bañ ñu jàll néewul nu jiibu de am na yu gën a bari noonu lay waxee waaye ujibu daawata daai isa daa nii falyastajiboo lii wala yuminoo bii la allahum yarsudoon yépp par benn la ko def pour nga bañ nga jàpp ne malaaka ko yonent wala kenn da cee bokk waaw ah googu nga loolu li mu jëfandikoo bëriwul ujibu bu doon yeneen mujibu isaa da ana fala yastajibu wala déedéet kon nga nag ah, kon yàlla ak malaaka yi ñoo ñooy participer <laughs> mun la man képp man képp ujibu man dong may muy woote waaw kon ñaareel bi mooy loolu ñu tënk ko rek ndax waxtu waa ngi jeex ñetteel ba mooy koo xam ne ñi weddi yàlla bokkaale nangu nangu woone li ñu nekk kéefar la comme ni ñu ko bëgg a defee léegi yaa maase la yépp léegi waaw ñu nekk ci diine islam ak ñu nekk ci jeneen ñu naan suñ mbokki nangam nangam yi suñ mbokki nangam jàpp ne lépp daal benn la léegi ñëpp a yem ñun ñëpp bañ ban croyant ma ne lu waay gëm rek nu mu gëmee rek baax na ñooñu nañu gëmee saalisu salaasa ñi ne yàlla ñett la nga ne ñooñu ñun ñëpp ñun benn la ñun ñëpp a gëm yàlla loolu yow dalay day génne nit ki ci lislaam ñeenteel bi ku jàpp ne am na geneen jub wala weneen doxin ci diine wu bokkul ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam dañuy critiquer di wax naan sunna ak ay sari ak yooyu yooyu dafa am na yeneen mbir yu gën a gaaw ay mbir ay dog ay da ngay dem ci ay gaay ñu jox lay secret yoo xam ne moo gën a gaaw nga daal yegg ci yàlla nga gëm ne mën nga fee bàyyi sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam am keneen ku lay teg ci weneen yoonu bokkul ak woowu nga gëm loolu loolu mën naa génne nit ki itam ci biir l'islam juróomeel bi ku bañ dara ci li yonente bi sallallahu alayhi andi donte ma koy jëfe am loo ci bañ yàggal ko sikkim mais sikkim neexul wala jigéen yi yaa ngay muur waaye da nga sañ te bañ naan islam moo ko imposé rek waaye man bu ma sañoon du ma muur mees bii mu ma tere bu ma sañoon di ko def waaye nag xëy bëgg na ma ne ci donte ba nga ko waaye neexu la loolu itam dafay firi ngëm yàlla nit moom la borom bi ne zalika bi annahum karihu karihu maa anzala allah fa ahbata amalahum yàlla ko bañ li mu wàcce rek say jëf nii juróom-beneen ba nga am looy saboté ci li yàlla borom bi tabaraka wa taala digle loolu amoon na jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam naafiq yi ànd ak moom cib xare di saboté naan sunu gaay yi jànkati alquran yi nga xam ne seen kol yi lekk rek lañ man ñooñu buñ demee ci xare bi danañ xam ne moom danañ leen dàq suñu borom tabaraka wa taala xamal ko yonente bi sallallahu mu taxaw bañ yegsi mu ne leen yéen a wax nangam ak nangam ak ah, doon kaf rek tooñ suñu gaay comme ni nga xam ne waaju la yeb bu na na def waaw waaw borom sikkim bi borom bu mu gàtt mi na nga def waaw jigéen ju muuru ji sa muuraayu seytaane ki ci kafe ak yow noonu ak doomi bàjjen yeeg yooyu yooyu kenn du ko kafe moo tax ma ne wala in saaltum la yaquluna innama kunna naxuudu wa nalab dan doon kaf rek borom bi ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun yàlla ku yonentam ak aaya moom ngeen di kafe ñu ne kon jéggal mu ne laa taatasiru yawma qad kafartum baada imaanikum bul amul excuse amul excuse doon ngeen yéefar laa taatasirul yow moo tax yooyu bu ko kenn kafe juróom-ñaareel ba mooy ak njibar nag njibar moom ni mu tasaaroo mu ëpp la rawatina ci bi média bi tasaaroo léegi njibar bu jëkkoon cee ka dem ca njibar ba rek moo ca daan xam dara waaye gannaaw léegi dañuy gisaane ci ay rajo di ji télé lenn lu nekk ñu di ko ci def même yow ma nga xam ne demoo ci sax ña la cay agressé boo nooyee bopp mën nga cee digg ah kooku jar naa seeti kat waaw su surtout nag campagne nag jox leen ay crédit ñuy woote naan man kay ba ma ci ñëwee dama jaaxle woon fu ne wër naa ko ba ma ko gisee mu defal ma nangam ak nangam yooyu yëpp sa bopp lañ bëgg a yàq ba tax na war naa tax nit ñi gën koo moytu bu baax a baax a baax a baax a baax xam ne kookee koy def logique bi ngay am rek mooy loolee mooy wax su ko mënoon wecceer yu sew yooyee bu cay amee kon dana ko mën a amal bopp waaw kii wax ne moom day faji soxla day faji aajo te moom ay aajoom fajuwut ay aajoom fajuwut ak jabar foo ko fekk ki koy jabar loo see ko tane bu nekkoon nañu wecce place bu dow bërëk gaare sa oto bu rafet jóge sa kër terrasse étage bu rafet fekk ko moom ci baraag boo xam ne ah yow dugg ci sax da lay jafe bu dee laa toogal sax léeg rek da ngay da doo xam fooy toog xam fooy toog ba noppi nag mu na la affaire yi dana baax waaw moom du tax affaire am baaxul moom la borom yadda oo la man darruhu aqrabu min nafi nee na moo gën a jege njariñam ndax ak moom la mën a jariñ yow loru nga bi nga daat de bàyyi nga fi dara bàyyi nga fi dara bi ngay dugg si li nga yoroon moom génne waa tookati moom yoroon nga cinq mille bi ngay dugg am na lu ci manqué xaw ma ne loolu bokkoon ci jariñ moom mais lor moom topp na la moom saa si moom moo tax borom bi ne yedd oo la man darruhu loram aqrabu min naf'i aqrab bi nga daa daan jóge moom yow weexala bàyyi nga fi dara moom man daa wax demal rek dana baax moom dana la wax moom nag baax na ba noppi am na dugal na ci poosam ne la dana baax <laughs> moom moo baax la jël na si cinq mille def ci poos bi ne la demal nga baax <laughs> da dana la wax de dana dana luy ñëw la ci kanam fitir la <laughs> fitir la moom nag présent la am moom moom baax na ko moom moom baax na pour moom kon njibar itam mënta ànd ak pas-pasu lislaam boo xam ne bu wér la juróom bi mooy di dimbali noonu lislaam yi ci kaw jullit ñi ak lu ñu la mën a fay ngay agent secret wu jullit ñi di bind ci ñoom ay rapport ak teewe naa seen waxtaan waag diwa nga fa woon ak wax nañ fa léegi ak lu ñu la ca mën a fay nga bëgg ko jàppe ne loolu métier la loolu du métier jullit borom moo ne wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada ndax soo demee fa ngay defee rapport ba yaa ngi jëw nit ñi yaa ngi koy tudd ku fa nekkul naan moom teewoon na fa wax na fa nangam ak nangam wax na fa nangam yaa ngi koy jëw tajassus nga ko yaa ngi koy jëw te borom bi neen wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada kon yooyu itam bokk na ci génn nit ki islam juróom-ñeenteel bi mooy nga jàpp ne am na koo xam ne moom mën naa génn sere ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu waraabal na ci moom egg na foo xam ne mën naa bañ a julleeti mën naa bañ woor mën naa bañ a asaka mën naa bañ a bàyyi araam bu ko neexee naan sàngara bu ko neexee takk bi jabar lu ko neex def te moom du ko wàññi dara loolu ku ko gëmal nit nga gëm ne kii li muy def légal na yow loolu génn na la ci lislaam waaw loolu da lay génne ci lislaam waaw wa man dax kooku wut na beneen diina bu dul lislaam wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min fukkeel bi te mooy bi ci mujj na mooy ku du mooyu diine yàlla ji nangu ko jàng nangu ko toppatoo am na ñoo xam ne bu ñu romb daan ñii am ko jot wala toog fii ñii li ñu def fii xaaral man am ma demi sama yi man waaw <laughs> moom moom xam ne moom diine jëral lu ko moom perte benn minute bu muy sedd diine moom la borom bi ne waman aslamu mi man sukkira bi ayati rabbihi summa arada anha koo xam ne boo ko la ne ko lii la yàlla wax mu ne yéen a tardé man tëluma loolu man yéen a ko tax diine nangu ko jàng li mu ci fekkoon ci aada doon na ko ci bàyyam daal foofu la diine bi ak li mu dégg nit ñi di wax waaye toppatuwul jéem a jàng du laaj du fekkee fu ñu koy waxe yoonam nekkatul du préoccupation daal yitteelu ko daal kooku itam loolu la borom bi ne inna minal mujrimina muntaqimun yii yëpp nag ñu ne génn gi muy génne nit ki ci lislaam ki koy wax ci fulla ak ki koy kafe ñooyam diine kenn ko kafe kafe ga ak fulla ja ñoo bokk benn at kon Euh, waxtu wi jeex na liñ tënkoon itam ci waxtaan wi jeex na yàlla na borom bi tabaraka wa taala may pas-pas bu wér euh, may nu tam sàmmal nu ko ba bu ñuy dajeeg borom bi tabaraka wa taala ñu yor pas-pas boobu di borom bi ne wala tamootunna illa wa antum la waaye bu leen faatu adduna bi dund bi yàgg na dund bi heure bii nuy am nii yàgg na de benn bi seeg lu bari xaj na ci weer lu bari xaj na ci moo tax ña nekk biir sawara wal iyaasu billah bu ñu yuuxoo wahum yastarixuuna fiiha naan rabbana axrijna naamal saalihan xayran la si kunna naamal yàlla génn nu bu nu demee àdduna dañ def lu bokk la li ñu doon def lu leen yàlla tontu awalam nu ammirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakkar wa jaakumu nazir moo ndax mayu ma leen woon temps ca adduna ah. at weer ñaari at fukki at fanweeri at juróom benn fukki at loolu lépp xaj na lu ne xaj na ngeen bàyyi muy jàll ba lépp jeex nga naan bu ma delluwaat kon nanu jéem a profité ci li nu dese adduna bi jeex na ba noppi adduna bi toujours dama koy misaal ci bëccëg téeméeri at laa appal ñi gën a gudd fan téeméeri at la am téeméeri at yooyu laa séddale ci douze heures de temps bi ci bëccëg bi fi mu ne at yoo ma wax rek maa ngi imaginer foo toll ci bëccëg bi kenn dal la loo xam ne jant fi sooy kenn ñi fi jant sooy moo ñu am téeméeri at fi mu ne ñu am juróom fekk nun ñi fi ne passé nañ ci isbaatam noo ngi jëm ci ngoon bi ñu ngi ci ngoon de waaw suñu classe gi yëpp ñu ngi ci ngoon fi mu ne te ngoon bi suñu dee xool seen montre ah léegi ngoon tu jot kat léegi ngoon tu jot kat mi ngi bëgg a guddi <laughs> foofu la toll ci àdduna fi mu ne de noonu mag ñi bay ba ñuy xool suñuy montre nañu <laughs> xool suñu boo commencé dajale say bagage commencé laal li marché bi xam nga marché bi bu tam sa ne gars yi commencé laal li di takk bagage booye boonu commencé laal li de <laughs> commencé laal li takk bagage waaye ndig ba dëgg di a di doog a lal rek nga marché baa ngi doog a tàmbali xanaa xale yi ñooy doog a lal te ñoom it léeg-léeg ñu fekk la fa arrêté la waaw <laughs> waaw kon nag yàlla yàlla defal tawfiq may nu pas-pas bu wér may nu fan yu gudd yu ànd ak wér waaye ànd ak tënku ci ak njub ànd ak tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain